trois mois. Il y aura trois checkpoints. Corniche bu Ndaw, hôpital Ndamatou. Chaque checkpoint, il y aura des éléments du corps urbain qui seront renforcés avec les éléments du GMI. Il aussi trois patrouilles composées des deux brigades de recherche et un renfort du corps urbain. qui fera trois patrouilles. L'autorité compte sur votre professionnalisme, sur votre engagement. Donc chaque situation, chaque événement, rendez compte. Tous les véhicules ou bien toutes les personnes qui seront interpellées seront conduits ici au commissariat, au poste de police. Les chefs de brigade vous rendez compte de toute situation. L'autorité compte aussi encore sur votre engagement, votre professionnalisme, comme vous l'avez si bien fait à chaque fois. Donc, nous allons procéder au déploiement sans plus tarder. Hey oh. yeah dit le commandant, maintenant nous allons procéder au déploiement du personnel. am seen jàmm loolu lu baax la loolu kay ñu koy def lu rafetlu ko rek di ànd ak ñoom tamit di wax ni ñu xam ne ki ñooy dox ci mbedd yi ñu toog comme ni leen ko waxee ñu bañ a taxawaalu bañ a dem fenn toog ba affaire bi xam ne dal na suñu borom delluwaat nañ ci jàmm ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko nag mu delluwaat ñu ci jàmm ak salaam parce que lii tamit métti na toog wax dëgg yàlla bëgg a dox sa yitte mën na koo dox ndax benn affaire boo xam ne malar la boo xam ne ku ko moytuwul mu dal la te bu la dalee yaa yaa yaa ci torsoo rek waaye yaa ci ay ay ayib ak yooyu moo tax ñuy ñaan ñëpp rek toog seen i kër ba lii beex ci jàmm ñu ne ñu leen di félicité bu baax a baax parce que askan wi lañ fi nekkal gis nañ taxawaay bi rafet na lool jërë ngeen te gis nañ taxawaay bi ak yëg ñu ngi koy def te bëgg tëb manque de respect am bi gis naa ko macha allah di sama PS ma aussi am na leen lu ma àndal aussi daf ko comprendre macha allah jërëjëf jërëjëf commandant merci merci na oto bu jaar na la ci kaw ji lay daw moo tax mu jaar ci <laughs> Thank you. séen ñu di arrière daw fii fii fii baara fii fii fii man maa la séen waxal catégorie bi fan nga jëm nii foo jëm exactement gaar ba ah, xam nga produit bi nga yor moom bu ñu ko immobilisé na bi dañ la escorté nga dem ba gaar ba nga gaare fa oto bi sa pièce par contre dañ ko yóbbu commissariat bu subaa nga jaar commissariat pour régulariser n'est-ce dañ lay escorté nag ndànk-ndànk nga dem nga gaare bul bul tourné feneen bul jàdd feneen parce que maa ngi la gis yaa ngi arrière def marche arrière avancé déglu rek toujours je t'explique yéen bii gis naa li nga bi nga def defal li nga la dafa nga gaare ji gaar ba maa lay escorté ba gaar bu ndaw nga gaare ko fa demee incha allah nga ñëw commissariat pour régulariser n'est-ce pas ok kat demi tour jiitul ñu tam sa ginnaaw mel nii di doxantu vingt heures heure bii maa fi nga dëkk sorewul kaay ñu yóbbu la fi nga dëkk sorewul chaque jour lii la ñuy dajal mais notre professionnalisme ak notre compréhension parce que ñu nit si ci société bi lañ dëkk ci nit ñi lañ dëkk ci population bi lañ bokk dañ fi am ndey am fi baay dañu am rak am mag am ay soxna donc yooyu yëpp aussi ñu dañuy xam nan la ñuy defee waxtaan ak yow xam lan moo ne sa bopp fu ñu la mën a orienté ñu orienté la bu fekkee dañ la mën a yab suñu oto ñu yóbbu la bu fekkee ni dañ la war a yóbbu hôpital ñu yóbbu la hôpital bu fekkee ni aussi xam nañ mesure de sécurité bi laaj na ñu yóbbu la commissariat téye la fa ba suba pour bàyyi la nga dem ñibbi ñu doxale noonu départ de domicile, vous logez au marché, puis-je avoir vos pièces d'identité s'il vous plaît Merci beaucoup, chef. Salaamaaleykum. Ça va bien? Vous n'avez pas de sang? Reparé par les francs. da na ngeen def yéen a ci jàmm fi ngeen dëkk wallaahi ñu dëkk ñu fa étranger ngeen étranger mooy lan mooy seen di daan doole rek waaw da ngeen di daan doole même ñun sax dëkk ñu fa dañuy daan doole rek mais war ngeen am kër gu ngeen dëkk bu ngeen xëy see ngeen jaay si bu ngeen wàccee ngeen dem ñibbi foofu mais waru leen ñëw di tëdd ci marché bi nii ça li insécurité la li wóorul ñàkk pexe rek xes na ñëw fii volontaire yi xëy na mënuñoo ñibbi. ah ngeen dëkk Pekes Ngaye waaw. loolu du diggante Pekes ak Touba amul frontière. ah Pekes ak kii bi lañ gaar oto yi dawatul. oto oto ah, si oto yaa ngi daw oto yaa ngi daw. Ah. oto yaa ngi daw. ah ñun nag dañoo déggoon dara dawatul. déedéet si oto yaa daw. Ah. parce que dee leen déglu rajo di seetaan télé di xam lu xew bu ngeen ko deful da di réer oto yaa ngi daw mais dafa am heure yoo xam ne oto yi dañuy taxaw aussi oto yi dafa am nombre bu ñuy yeb dàqante ñun di dugg ak génn di foo ñun foowuñu ñu nekkuñu di caaxaan dañuy liggéey toog leen seen biir kër ngeen delloo seen bunt wala ngeen xam lu ngeen def mais bu ñun bu ñu demee ngeen génn di caaxaan bu ñu ñëwee ngeen def ñu kenn xamul ça c'est pas sérieux respecté leen seen bopp ñun ñu jox leen cër yi donc tey moom lañ def toujours përi lañ nekk tey tamit ci loolu lañ nekk donc comme li leen wax rek population bi am na ñoo xam ne dégg ñoo xam ne ay malade lañ def su fekkee malade am na loo xam ne kenn du leen ko jàngal cas de force majeure hmm? soo leen euh, mënee assister ngeen assister leen jéem a dem su fekkee hôpital lañ jéem def au cas contraire su fekkee les véhicules là yi nga xam ne ni transport yi rek yooyu moom bu lay immobiliser jël kër yi yëpp les immobiliser les véhicules conduire ko au commissariat si vous avez des problèmes yoo xam ni ça vous dépasse bon vous avez nos numéros vous nous appelez vous nous rendez compte nous allons faire l'essentiel. kaay kaay kaay kaay kaay borom kër gi yaay kilifa bi kaay kaay bul daw xanaa yëgoon yi dañuy tere à partir de vingt heures kuy génn dugg leen seen biir kër yi ngeen toog yàgg seen njaboot soyez des responsables tere leen seen doom yi ñuy taxawaale ci biti ñun li ñuy def c'est pour vous pour yéen la ñun bu ñu bàyyee suñuy nelaw bàyyee suñuy jabar bàyyee suñuy doom di wëndeelu guddi gi ba fajar pour yéen la ngir yàlla aussi nag jàppale leen ñu mais ñu teg taabal nii di jaay nii ñu jóg di daw bu alkaati romb ngeen tegaat waaw mee wax nañ toog ci biir kër gi biir kër gi yaatu na ma uy ma jërëjëf li nga wax loolu nga ñu ngi koy dund li ki yëpp si sécurité loolu la yaay yaay kilifa du yaay kilifa kër gi loolu yow yaa ci war a veillé loolu yow yaa ci war a jàpp mais bu fekkee yow mag mi yow yaay def loolu man xamatuma ci dara non non xam nga man man jàkk ji ji ah, moom kooku pour yéen la. li ngeen wax dana am dana am dëgg la jàkka ji man mii jullit laa yow jullit nga keneen jullit la. ndigal loolu la seen joxe sax waaye am na ndigal la. lii lay bañ ñu nga waat maa ngi ñëw damay déglu ma expliqué pour nga comprendre man sama cër mooy ma wax la nga xam jàkka ji mën nga dem jële fa feebar bi ñëw wàll ki sa njaboot est-ce boobu dana ko jar mi ngi noonu nag loolu tax ñu tere ka jàppale leen ñu rek bu soo yàlla bu ñëwee dañu. taabalu njaay bii nañ ko jël dugal ci biir taabalu njaay bi jël. dama rek yow kay dama rek. kii amul hygiène wax nga wax nga waaw bisimilah suñu jàpp bala der ah bala sama xool seen ñu jàpp leen duma leen bi ñu bëgg dee sëñ bi sëñ bi naka nga gisee mbir mi nga xam ne mooy am ci dañoo toog xale yi nga xam ne ñu toog di saaga police yi ak wax ju ñaaw ji nga xam ne dañu war leen kenn du leen duma kenn du leen góor gi baax loo xam ne ñu yëngu dafa ñaaw wax bàyyi ko rek ñu jënd ba ma naqari góor am damay wax ba sonn ci koñ bi dafa naqari man ci yéen laa bokk ndax maa ngi liggéey ci ak ah. chef de village Touba Mosquée yëpp chef de village ci laa bokk xale yi waaye sëñ bi lii ngeen def nii damaa naqari damaa naqari góor moom loolu waxi lablaay loolu waxi lablaay xam nga boo nekkee ci ba faw nga xam nga weexe man li may xam ne dégg xam na li may wax baax xam na wax yow maay borom kër bi ak borom kër ñu bokk kër ñu yooyu kilifa dañ am looy wax dañ ko war a xam ne dañ war a jàppale nit ñi ay dañ ko war a bàyyi ñëpp a dugg si biir quoi à part pharmacie yu bi nii waaw gisuma kenn ku doxantu fii nii ko en fait jàppalante rek affaire bi jàppalante la rek waaw ñu ngi fi pour jàppale population bi quoi en fait waaw jërëjëf. liggéey bi daw rafet na merci beaucoup merci waaw ñu ngi jaajëfal bu baax sensibilisation bi sensibilisation bi defe naa ni moo ëpp solo te sans ak sensibilisation boobu ñuy def moo tax ñu am tey résultat yu ñu am defe naa ni gis ngeen eh, yoon yi actuellement ni les rues sont désertes donc defe naa ni message bi jàll na bu doon du sensibilisation ak communication bi message bi du jàll ni parce que le sénégalais moo mel noonu répression boo ko privilégié rek problème am parce que nit ki boo ko bëggee poussé à bout rek mu jéngu te sénégalais ku leen ni ay eh, bañkat leen donc sensibilisation bi mënut a ñàkk loolu tax euh, bi ñëwee ba comprendre loolu nag ñu gën a focaliser wu euh, ci sensibilisation bi. Euh, feebar moom kenn ñaanul yàlla tawat mais nit ki bu tawee nag cas de force majeure la mu dem à l'hôpital donc ñun li ñu mën def mooy faciliter leen su fekkee sax ñu jël suñu oto jël suñu oto yab leen ci yóbbu leen à l'hôpital pour que ñu faju mooy li ñu suñu suñuy suñuy noonu. suñuy frère ñoo ci nekk euh, suñuy yaay ñoo ci nekk suñuy papa ñoo ci nekk suñuy sœur ñoo ci nekk donc yéen ñun ñi ñëpp tey ku ci sa sœur feebaroon tey di nga di ko jël jàppale ko yóbbu ko à l'hôpital j'espère hmm? donc ay nit lañu hmm? nous sommes ay nit lañu loolu la ñuy wax euh, humanisme donc euh, day bokk dafa bokk ba bokk si suñu formation donc li ma leen di wax noonu ñoom lu ñu xam la mais day baax des fois aussi nga leen koy rappeler rek loolu dong message bi ñu leen di euh, euh, lancé moom leen la rek euh, feebar bi fi mu ne nii moo indi problème mu couvre-feu bi bu ñu leen waxee ñu toog seen kër c'est que ñu éviter pour que maladie bi propagé wu ci population bi donc loolu tax ñu toogloo leen seen kër mais du question dañu leen bëgg toogloo seen kër pour la forme donc il faut que yéen journaliste jàppale ñu ci loolu lancé message bi di communiquer ci seen rajo yi di leen expliquer jàngoro bi bu nit ñi toogul seen kër di génn di. Euh, taxawal ci mbedd yi mbooloo mi di dajale ni muy mën a euh, propagé wu donc il faut que yéen journalistes aussi ngeen jàppale ñu ci loolu donc message bi ñu leen di lancé daal mooy euh, ku ci nekk daal heure bi ñuy wax heure couvre-feu bi bu ñu ko mënoon avancé sax dañ koy gën a rapproché def ko ay 18 heures yooyu mais pour ñu permettre leen nit ñi mën a ñibbi jël yenn précaution yi préparé seen kii moo tax ñëw ko 20 heures donc li ñu ñaan daal mooy bu 20 heures jotee ku ci nekk daal toog sa kër. bàyyi yi ñuy def yoo xam ne nii yëfu xale la mooy ni ñuy def nii comme ni bu ñu bu ñu leen jubee ñu daw dugg seen kër bu ñu demee ñu gënaat toog ci mbedd mi mooy daal li olof yi wax rek defe naa ni fagaru moo gën euh, faju loolu daal laa mën ah ce sont des dires kooku moom euh, nit ñi ñooy euh, wax rek <laughs> yéen gisal ngeen seen bopp ni ñuy liggéey ni ñuy ni ñu doon liggéeyee ak population bi hmm? kuñ ci interpellé am interpellé nañ ñu bëri seen kanam bàyyi leen ñu dem parce que xam nañ ñi li leen tax a génn cas de force majeure moo tax ñu génn mais am na ñu interpellé aussi indi leen bu ñu la interpellé ci mbedd bu fekkee ne da nga da nga dëgër bopp euh, braver autorité bi cest à ñu tere couvre-feu bi yow nga braver kii bi euh, ci sa coobare bopp lan lañ mën def mooy interpellé la indi la au niveau du commissariat bu ñu demee ba jugé na nécessaire que nañ la baax ah, ñu bàyyi la nga dem noonu la rek mais yéen gisal ngeen seen bopp ni ñuy liggéey li ngeen gis tey ñun noonu la liggéey. avant tout dañ leen di nuyu di remercier suñu kilifa yi nga xam ne si ñoo ñu autorisé lii di leen gërëm yéen tamit parce que liggéey bu rafet ngeen def parce depuis vingt heures ba léegi ñoo ngi ànd ci terrain bi di dugg fu ne di def lu ne di daj lu ne di gis lu ne waa ci question bi ngay posé noonu boobu tontu ko dana yomb trop ndax police dafa am lu muy liggéeyee alkaati nit ñi dañuy fàtte ne toujours moom lay rappeler que ci société bi la bokk am na ndey am na baay am na njaboot te bu weesoo loolu dafa am lu ko fu ñu ko yare ci école nationale de police am lu ko tënk ñu formé ko ci mu génn ñëw commissariat gis nga poste police bi ngay gis nii université la lépp loo gis ci xam-xam fii lay commencé fii lay cosaanoo fii lay sosoo ci question pour tontu lu mu gën a gaaw ci li ngay wax dafa am lu ñuy wax registre de main courante lépp loo xam ni dem nañ ci biti registre baa ngi nii lépp loo xam ni dem nañ ci biti gis ko fa téye ko fa for ko fa bu ñëwee dañ koy bind consigner ko téléphone yi ngay wax yépp ñu ngi nii amul benn téléphone boo xam ni man dinaa ko dugal sama poos wala élément yi dinañ ko dugal seen poos alkaati yi ay fonctionnaire de l'état lañ dañu am xaalis banque bu ñu dem ñu lebal leen xaalis portable bi gën a cher mën nañ ko jënd loolu la nit ñi nit ñi dañ ko def seen bopp ñun du ñu ay ay ñoo xam ne si bokkuñu ci société bi ci société bi lañ bokk lépp lu fi am mation mu ngi nii bu borom ñëwee ni sama téléphone nii la mel ak nii ñu ubbi mu ne tel jour la ñu ubbi xool numérotation bi ubbi fii xool ni mention tel date tel jour tel fii lañ ko jëlee lépp c'est écrit noir sur blanc téléphone yaa ngi nii amu ci dara luñ ciy jël bu dee ku ñu jël sa bool wala nangam sàng bu ñëwee dañ koy bind consigné ko boo ñëwee ñun la sa bool a nga nii bu dee xool leen fële basang yaa ngi ne le ñi ñu fekk ci mbedd yi yépp ñuy teg seen basan ak seen banc dañ ko mujj fii lañ koy teg ku ci ñëw ñun la sa basa nga ngi nii nga ni bii sama bos la ñun la sa bos a la borom soow yi bu ngeen ngeen interpréter ci mbaar yi laaj leen ko dañ ko jàpp mu bàyyi fa ñetti siwo soow ak meew ak suukar bàyyi ka fi ak téléphone am moom ci boppam xam naa ni peut-être dana seetaan vidéo bi dana leen mën a tontu bu ngeen ba ci mbaar mi ci jaaykat soow bi bi mu ñëwee dafa ñëw ñu jox ko siwo soow suñu frigo bi lañ ko dugal denc jox ko téléphone am jox ko caabi caabi kiiwam parce que dafa daw bàyyi ko fa ñun ñoo ko tëjal sécuriser lépp bi mu ñëwee dafa jaaxle bi ñu ko joxee siwo soow yi ak meew yi mu ni moom yaakaaroon na ni siwo soow yi naan nañ ko ñu ne ko déet soxlawuñ ko café la gis nga mi ngi nii moo ko restitué donc amu ci lenn loo xam ne ñun dañ koy jëlee suñu bopp wala dañ koy lekk wala dara am nañ xaalis bu ñu génnee bu ñu bëggee jëndi dem jëndale ko suñu xaalisu bopp soxlawuñu alalu kenn soxlawuñu jël yëfi kenn lépp lu ñuy def dañ koy teg ci yoon bu ñëwee ñu bind ko fii déposé ko fii poste police ñu garder ko fi ku ñëw bu ñu xoolee xam ne lii yaa ko moom vérifié ba mu leen ñu laaj la sa carte d'identité identifié ko bind ko bu ñu ko waree restitué ñu restitué si s'agit de ñu bind la amende daggal la amende forfaitaire ñu daggal la amende forfaitaire loolu moo fi ne